tànk goo xam ne la ca jiitu tànku ngërëm la tànku cant la te di ko dox ci foo xam ne euh, li ñu boole dafa bëri wax na ko léegi plus ñuy waxtaan plus ñuy gën a gis sax ay lien yoo xam ne dem na ba ci lien wu famille ci wàllu diine rek ñëpp xam nañ sama diggante lew na ak Medina Baye muy diggante goo xam ne ñoo ma soppal seen bopp integre ma boole ma ba tey su may dem Kaolack defe naa ci sama dem yu gën a neex la bokk waaye waaye moom dafa dépassé dimension boobu kese moo tax ci discours am euh, leader politique bi moo gën a feeñ te leader politique boobu la ñu seet si ndax euh, événement politique dafa am ci réew mi moom en tant que leader politique mu am ci taxawaay boo xam ne ñëpp gis nañ ko génn taxaw jël suñu défense jël ci ay engagement araftu it te wax na ko léegi loolu ku ragal du ko def waaye da ba mu koy def def ko ngir parparloo daf ko def parce que dafa ja jàpp ni jaay doole am na tooñ am na moom muy acteur politique buy xeex ngir ay principe doublé d'un d'un guide religieux mënuñu woon na yaakaar taxawaay bu wuteeg booba kon ñu ngi leen di gërëm bu baax ci sama tur ci sama turu famille parce que li am du attaque politique kese waaye attaque privée samay soxna sama wayjur samay mbokk ñëpp seen tur di leen gërëm bu baax di leen gërëm ci suñu turu parti politique nga xam ne moom it am na ci taxawaay boo xam ne waaye de delà de l'attaque privée attaque politique la woon aussi di leen gërëm ci turu ñi taxaw ñëpp ci ay mouvement citoyen ay parti politique ay citoyen ordinaire waaye di leen gërëm ci turu peuple sénégalais bi parce que li xew dafa engagé woon peuple bi yëpp bëri na ñoo xam ne génn nañ taxaw ne lii du jàll du ñooy militant Ousmane Sonko waaye ay principe moo taxaw ñu jóg kon ñooñu seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di dellu di naqarlu toujours lii nga xam ne rot na ci ci ay bakkan muy lu ñu métti ñun ñëpp nag te loolu su doon am nañu 100 ci détermination mun naa ne multiplier na ko par 1 million parce que benn hommage rek la ñu mën a rendre ñooñu mooy principe yi taxoon ñu jóg di xeex ñun ñu mottali ko ba fa ñu tëdd ñu gis ni am na jeexital ci senegal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax yow ak sa njaboot ak sa parti di wax nag ni ñëw fii toujours ni mu nekkee nii dafa am plaisir bu rëy buñ ci am parce que Ahmed Khalifa Niass ñoo ngi ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique mooy ko xam ne kenn natablewul dimension intellectuelle am maa ngi ko wax sànq bi ñu weetee nii balaa may dugg politique depuis anne années 2009 tey sama ordinateur su ma ko woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass lu bëri la muy bind ci ay contribution ay articles maa ngi ko wax léegi benn bu mu ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii lépp fu mu ko xamee donc ñëw seet si ku mel noonu nga xam ne ci wàllu xam-xam xalaat ak xel li amul kenn koo xam ne dinga am xel ñaar ci Sénégal c'est toujours en plus muy loo xam ne it am nañu yaakaar ni dina ubbi bis tey beneen bunt beneen dimension ci relation ak collaboration ndax saax maa ngi koy tooñ ne ko nangul lañ la ni patriotisme yaay bàyyam ci senegal ndax deux deux mille nga créé parti askanale dàkkantele ko patriotisme ma ne ko kon soo ko revendiqué ñu ñëpp dañ koy nangu donte bi ñuy créé parti sax du woon ci logique concurrence waaye maa ngi koy tooñ léegi ne ko man li ma ci xaw a métti rek mooy boo xoolee fichier parti politique yi mat nañu 300 am na ci au moins 30 yoo xam ne patriote wala patriotisme mi ngi seen seen seen sigle waaye li tax ñun rek nga ciy sànni xeer rek <laughs> boobu moom laa xamul mu ne ma xam nga politique il faut mu am kujje waaye ñu gëm patriotisme dañoo war a daje li mu wax dafa am solo mooy dafa jot ñu construire suñu propre modèle wala ñu reconstruire ko parce que amoon na nag. ñàkku fi woon modèle bi ñuy doxee nii dañ ñu ko imposer te tegal ñu ci bi ñuy jox indépendance ñu wéy ci ñu nit continuer kon dafa jot ñu tabax suñu propre modèle te idéologie it ñàkkul woon fii Afrique ndax ñoom sëñ Thierno Souleymane Baal ak euh, li ñuy wax charte du Mandem ku ko liir da nga xam ni ñoo jiitu woon foofu tey ñi ñu imposer ay idéologie ci wàllu xalaat kon woote patriotisme li muy tekki rek mooy ñu dellu si suñuy valeur construire suñu model ci base boobu te weesuwul tamit ñu jiital bëgg suñu réew donc bëgg suñu bopp ci lépp damay wax toujours ni bëgg naa sama bopp tekkiwul ni bañ naa la amul réew bu dul dox nag ci patriotisme dañ ñuy nax rek tubaab yi ba date bu sorewul sax ñoom ñëpp patriotisme lañ doon doxee bi ñu dee ba xam ni mënatuñu jëriñu lu bëri ci patriotisme parce que mondialisation dugg na te il faut ñu dem noot ñeneen nax leen ci la ñu ne léegi dañu làq patriotisme bi bañ koo fësal parce que suñ ko fësalee ñeneen yi dinañu yeewu ci loolu ñu àndil ñu nag ay ouverture ak ay accord de partenariat nag ubbi leen seen économie def leen lii def leen lële ñu ñëw jël li ñu bëgg ñun yóbbu kon ñun ñi xam ni naxe foofu la ne ñun ñëpp dañoo war a daje ci loolu nga xam ne mooy patriotisme ñu ngi ci am ubbeeku bu doy ñun suñu waa parti liggéey ceeg tous les patriotes te mënuñoo am xel ñaar ni moom patriote la ndax xeex na ko ba def ci kaso boobu peut-être ñun juddaguñu wala suñu juddoo it ñu ngi doon jàng dox wala jàng ram kon kilifa gi loolu moom maa ngi ko wax ci sama turu parti ak ñi ñuy liggéeyal yépp dinañ ci sawar lool daje ceeg yéen liggéey ji leneen nag li ñu wax lépp wax nañu. ay dénkaane yu ama am solo ndax saako wax na ma ni am na piège yu ngeen war a moytu mooy conflit inutile contentieux yu bëri yoo xam ne amul njëriñ loolu dugg na suñu nopp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax na ko fi te expérience la ko waxee dégg nañ ko te waxtaan yi ñuy am yi ñuy seqaat xam naa ne yu bëri na ci génn kon kontaan nañu trop bég nañu trop ci ñëw gi ñëw fii ñun nag Sénégal rek la am moom la ñu bëgg amuñu beneen nationalité Sénégal lañu gëm ba ci gëm ko ci service public damay wax ni li ëpp ci samay doom tey lycée lañ amul sama benn doom bu egg niveau collège te nekk école privée parce que dama gëm man service public sénégalais am naa lu ma demee fay ci li eh, école yi gën ci école yi waaye samay doom ci lycée public yi la ñu ne bu baaxee ñu ànd ak moom. bu bonee ñu ànd ak moom ndax ñun produit école publique boobu lañ moo tax mënuñu bañ a nekk des républicains ab républicain du bëgg le cycle démocratique ñu interrompre loolu baaxul cim réew parce que dellu gannaaw la de cinquante ans wala sax avant indépendance loolu duñ ko musa duñ ko musa a sooke duñ ko musa a favoriser lañ bëgg rek mooy réew mi ñu xam ne ñun ñëpp a ko bokk réew mi tekkiwu ni dañoo fal nit moom moom réew mi parce que toujours dama naan concept buur sa war nañ ko xoolaat parce que ñun amatuñu ay buur buur moo moom dëkk bi dañ naan alalu buur mbedd buur et cetera ñun ay président la république ñoom mooy boo ko bëggee nekk da ngay ñëw saraxu sénégalais yi ñëwoo imposé wu doole da nga ñëw ne dénk leen ma am naa programme keneen ne am naa programme kenn am askan bi ne yaa ñu doy waaye ci kaw programme ak li constitution maye ci droit ak li mu limité ci say prérogative kon réew ñi ko bokk ñëpp ñoo ko war a séq ñu war a am sañ sañ nag mu am ñu bokk ñu ne bokkuñu gis-gis ak ki yor réew mi ñooñu waruñu leen persécuter dañ leen war a bàyyil seen cër ndax ku yor réew rek te am ko ci alternance démocratique dañu laa bàyyi moo tax nga mën koo nekk waaye su doon ñi fi nekk dañ ne kenn du fi wax déedéet kon doo nekk président loolu it ànd nañ ceeg yéen d'accord nañ ceeg yéen dañu jàpp ni réew mi moo war a ubbeeku ba kenn ku ne respecté sa sañ-sañ ak sa droit ak sa ak ak sa àqi morom te lépp ñu teg ko ci constitution ak loi réew mi loolu it dinañ sawar dox ci jàmm la la réew mi bëgg boo gisee keroog mu wax li ma wax ci jàmm Casamance ba ñaan ne ci juróom benn weer yi ñu ñëw ñu dem parce que du lu ñu war a xaarati te du lu ñu régler ak ay kanu kon loolu ñu nit am nañ ci ubbeeku bu doy parce que bu jàmm amee Casamance Sénégal décollé léegi ndax la fa yàlla def ci possibilité yàlla yàlla rek ko mën wax nga ko léegi ci ressource forestière ressource agricole ressources halieutiques suuf su nangu taw gu bëri léegi ñu gis fa ay ressources minières kooku dañu war a fexe ñun ñëpp jàmm am sénégalais bu bëgga liggéey ak foo mën a jóge nga mën a dem installé wu liggéey ànd ak ña fa dëkk ngeen liggéey mu doon naataange Sénégal loolu am nañ ci ouverture pour liggéey ceeg ñëpp ba solution boobu ñu am ko définitivement kon vraiment bég nañu ci visite bi waxtu wee ñu tënk waaye mënoon nañ ci wax ba guddi comme tey bésu àjjuma la te ngeen i ngeen it kilifa diine war a jiite jumaa duñu duñu duñu xababal ci wax ji waaye di wax ni bis ni ki tey jàpp leen ni seen doom seen xarit seen collaborateur ci politique ngeen bokk gis-gis bokk idéologie euh, tàllal na loxo pour ñu mën a wëyal waxtaan mën a collaborer dans l'intérêt du Sénégal jërëjëf waaw loolu nangoonte nañ ko